dem na këng waxi mbag dem ndeñ taali ci jamono ji ñëpp a ngi xaar njiitu réew mi Macky Sall mu firi askan wi wala boog mu lett leen samedi ji la fas yéene eh, gindi askan wi ci lu bari yéen cabinet lu munta am mooy candidat gu mu munta tànn ci coalition Benno Bokk Yaakaar na xam ne fipp fipp mun na am ci bile coalition ndax am na ñu samp seen dënd te xel xalaatul ñu deltu ginnaaw ku demee ni Mame Boye Diaw mi ñu ne candidat la ah, tàmbale na dagaan baatu askan ah, ba ci Amadou Ba premier ministre ba ci Abdoulaye Daouda Diallo eh, Abdoulaye Dione ak ñeneen ak ñeneen ba ci Aly Ngouille Ndiaye yéen a kaabit Walf Quotidien jàpp ne njiitu réew Macky Sall mun naa def tànneefu boppam waaye nag na séntu ne gars yi mun nañoo fippu daanaka euh, ñaxtu ci euh, coalition Benno Bokk Yaakaar mun na am ay candidat ay candidat yéen a kaabit di euh, l'observateur ne lépp dina leer ëllëg incha allah ci samedi ji wolu na leen ca pale ba ngir xool kam lañ cay tànn ci candidat yi nga xamante ñoo yëglogum ci Benno APR moom jot na amal ndaje bu waxtaan démb ngir xool matuwaay yi nga xamante ne dañ ko ca jël tànn na candidat am euh, yéen a bi euh, gis ne ay secret la ay doxalin yooyu xamante ne kenn daanaka euh, gindeekoogul ci njiitu réew Macky Sall ak kamuy investir ci élection présidentielle yu 2024 waaye nag mun nañoo séntu jafe-jafe ci bile coalition yéen a bi di mun naa baña am ndax fippu goo xamante ne ku ci yëglu tàmbale ñaxtu ak tamit di dingat mun nga am jafe-jafe ak njiitu réew Macky Sall yéen a ne ndax jaasi la leen timal ci jamono ji ci waxin bokk na ci fond force Covid rapport gàncax jotoon na amal am na ñoo xamante seen loxo laale na ca ba tax na ñooñee bu ñu defun dànk mun nañoo sulli seen mboot xam nañu euh, la ñu def ak la ñu defut la ñu mun ak la munut ba tax na ñooñee dina jafe lool ñu mun a fippu wala ba bu ñuy fippu euh, seen fippu du yàgg mu ngi ci yéen kaabi di euh, turbine yéen kaabi moo ñu ko yëggee yor yor gi mu ngi ñuy dégtal yi tamit lu aju ci géopolitique beek élection présidentielle yu ndax dina ci doon candidat am déet boole fekke ma ci boole jot naa démissionné tekki na ndombol tànkam eh, ca benno ne eh, bokkatu ca benno tulak eh, gaaya moom yusu nduur xam ne dina xoolaat ban tànk la fas yéene jiital ci élection présidentielle yu 2024 yor yor bi gis ne mu ngi ci calcul yu métti métti ndax moom rek ay demal boppam wala boog day bokk ci coalition gi nga xamante ne moo fas yéene jëm ci woote ñu tànnee njiitu réew yéen kaabi di sursaane lu jëm ci yooyu les élections bëgg nañu ñëpp mun cee bokk candidat ya ca war ko ci waa F24 bëgguñu itamit ñu tëj kaso ñi nga xamante ne ay détenu politique lañu nañ leen bàyyi ñu am afia doon na càkkuteefu F24 tey ji ci àjuma ji sax la waroon a amal te falu ñaxtu ca place de la nation waaye préfet aye na ko gantal na ko F24 nag xam le ne dañu yëglu ci yor yor gi ngir xool ndax euh, googu lépp ndaje dañ ko amalam déet yéen a bi di sursaane li am ba des mooy rapport yi jot nañoo diisoo ko jor ngi ñu dénk wàllub yoon Ismaïla Madior Fall fu malade ak ñam ca fegool wax waxtaane nañu ak jawriñ gi eh, ngir sàkku itamit eh, yoon mun a may afia liberté provisoire bayib négandiku eh, nit dof ak Karim Xurum Xaq yéen cabinet googule audience doxoon ci diggante kuréel gi boot ay rappeur ak itamit jawriñ gi ñu denk wàllub yoon kii di Moundiaye Cissé bu ONG 3D moo ko yombal ba gisee mun ca am yéen cabinet di le témoin ne FMI gis na ne Sénégal am na lu mu jot ñàkk ci wàllum koom du croissance bi xaw naa wàcc lool la sabab mooy fitna yi fi woon ci réew mi tax na nag mu jur njeexital ci suñu koom gi nga xamante ne croissance gaa ngi teelu ci 5 euh, pour cent euh, bi yoon mu ngi ci 4 euh, virgule 1 pour cent ci gi ñu ne yéen kabi di le témoin moo ñu ko yëggee le quotidien xëy ko dëggal ne émeute yi fi woon fitna yi fi woon ci weeru juin daanaka jur na gàllankoor ci koomub Sénégal jot na ko xajamal FMI jàpp ne daanaka liñ ci doon séntu mujjatuñ ko am ci atum ren ji ndax xaw na rës mu ngi ci yéen kabi le quotidien yéen kaa bi di le peuple quotidien FMI eh, ci jamono ji gis na ne Sénégal mun na caa génn fi nekk 2024 séntu na sax eh, li nga xamante ne eh, mooy taux de croissance bi mun a dem ba yegg ci zéro maanaam yegg ci 8 virgule 8 pour cent bokk na ci recommandation ay digle yoo xamante ne FMI jox na ko Sénégal bu ca tënkoo rek mun na indi indiwaat yokkuteeg joyanti koom-koomam yéen kaa bi di las ne FMI jot naa rafetlu jéego yi nga xamante moom la Sénégal def ci wàllum koom waaye nag jot na am gàllankoor eh, ci lu bare bari ndax mbas mi fi jaar ak i tamit eh, li nga xamante ne gerub Ukraine bi eh, jur na njeexital ci suñu koom-koom gi ak jafe-jafe na ci wàllu politique am na nu mu jeexe ci koomub Sénégal yéen kabi di réew mi quotidien waxtaane na mbirum koom-koom ca bitim réew gamu ne njiitu réew Macky Sall xamle ne jot nañu xoolaat système alimentaire bu Afrique maanaam fexe ba Afrique béy di dundee dina doon ngéneel ndax suñu continent waratul am jafe-jafe ci xiif ak itamit mar euh, mu ngi ci yéen kabi di réew mi euh, quotidien yéen kabi di Le Soleil euh, xëy duñu dektal der bi jóg taxaw askan wi ci wàllu financement ne lu ëpp deux cent quarante mille sénégalais yoo xamante ne jot na leen taxaw ci wàllu financement ci ñooñee téeméer boo ca jël juróom-ñett fukk yi ak ji ay jigéen lañu yéen kabi ne ci xayma daanaka crédit gu toll ci quarante milliards jëm ci itamit remboursement taux BAC lañ ko natte yéen kabi di lay gis ne der bi am na njeexital gu jur euh, ci euh, koomub Sénégal di euh, taxaw askan wi ci wàllu financement yéen a kii stade taxaw ci tàggatu gaynde yi bokk na ci cay stade maître Abdoulaye Wade Gane ca Diamniadio bu lay mañu ne am na gaañu gaañu ba du bokk ci biir jongante Formose moom daanaka mun nañu njort ne mun nañ ko forfait ci bile match yéen cabinet match bu rey moom la Sénégal waajal bu weesoo digganteem ak euh, Rwanda niki samedi gi am na beneen match gu gën a am solo diggante Sénégal ak Algérie niki talaata Sadio Mané wax na ca ne xelam dal na ci match gi mel daanaka sax du revanche waaye nag daañu def lépp ngir gagné Algérie am nañu pexe ba te am nañu mënin ga ci wàllu football ba tax na bi de yoon bu talaata jote ca stade Maître Abdoulaye Wade ba ca